may profité nag ci occasion bi tamit di félicité ay candidats yoo xam ne tey jii ñëpp gis nañ exploit bi ñu def ku mel ni Barthélémy Dias maa ngi koy félicité pour Dakar parce que Dakar c'est la capitale du Sénégal mu gagné ko nekk un jeune donc maa ngi profité ci occasion bi di ko félicité di ko encourager tey Ahmed Aïdara c'était pas évident ñu bëri dañ doon animateur rajo la ko comme ni ñuy waxee waykat laa mais tey jii maa ngi profité ci occasion bi moom tamit di ko félicité moom Ahmed Aidara di ñaanal tamit yan bi nga xam ni moom la la nari yennu géejawaay mu am fa réussite. bien vrai que ni tey jii ñu bëri dañuy wax sama diggante ak Ousmane Sonko mais li ma leen doon wax ni leen man la personne de Ousmane Sonko am ak moom problème des fois ci ay dañ dul juboo ci yenn affaire mais je profit de cette occasion pour le féliciter jàmbaar la. maa ngi koy félicité di ko encouragé di ko ñaanal Casamance bi mu Ziguinchor bi nga xam ne gagné na ko yàlla may ko moom tamit lu mu ko mën a gérer ba nga xam ni li mu doon wax naan nit ñi votel leen ma tey jii mu mën fa def exploit boo xam ne nit ñi dañ ko gis. parce que soo gisee ma yegg si fii mooy il faut que nit ñi xam ni ñun nekkuñu fi nit mun nga mun na wax dara. nga bañ a gëm lu mu wax nga ne lii du mais nit bu defee exploit tamit exploit bi mu def danga koy apprécier ñu xam ne yow soxoroo donc je profite de cette occasion là pour féliciter tous ces candidats là muy Barthélémy Diaz muy Ahmed Aïdara muy Ousmane Sonko li leen ñaanal yéen bi woyof seen kaw jërëjëf may profitoon nag ci occasion bi tamit di féliciter ay candidats yoo xam ne tey jii ñëpp gis nañ exploit bi ñu def ku mel ni Barthélémy Diaz maa ngi koy féliciter pour Dakar parce que Dakar la capitale du Sénégal mu gagné ko nekk un jeune donc maa ngi profité ci occasion bi di ko féliciter di ko encourager tey Ahmed Aïdara c'était pas évident ñu bëri dañ doon animateur rajo la ko comme ni ñuy waxee waykat laa mais tey jii maa ngi profité ci occasion bi moom tamit di ko féliciter moom Ahmed Aïdara di ko ñaanal tamit yan bi nga xam ni moom la la nari yennu géejawaay mu am fa réussite. bien vrai que ni tey jii ñu bëri dañuy wax sama diggante ak Ousmane Sonko mais li ma leen doon wax ni leen man la personne de Ousmane Sonko am moom problème des fois ci ay. dañu dul juboo ci yenn affaire mais je profite de cette occasion pour le féliciter jàmbaar la maa ngi koy félicité di ko encourager di ko ñaanal Casamance bi mu eh, Ziguinchor bi xam ne gagné na ko yàlla may ko moom tamit lu mu ko mën a gérer ba nga xam ni li mu doon wax naan nit ñi votel leen ma tey jii mu mën fa def exploit boo xam ne nit ñi dañ ko gis parce que soo gisee ma yegg si fii mooy il faut que nit ñi xam ni ñun nekkuñu fi nit mun nga mun na wax dara. nga bañ a gëm lu mu wax nga ni lii du mais nit bu defee exploit tamit exploit bi mu def danga koy apprécier ñu xam ni yow soxoroo donc je profite de cette occasion la pour féliciter tous ces candidats la muy Barthélémy Diaz muy Ahmed Aïdara muy Ousmane Sonko li leen ñaanal yéen bi woyof seen kaw